ñu ci xaalis mu bañ. Hmm. lu tax mu def ko parce que dafa ne lii alalu askan bi la. lan la yàlla wax ci njëriñ. alalu njëriñ. te askan bi nag loolu loolu la ñuy autorité di fàtte message mais xaalis bi ñuy gérer presque xaalisu njëriñ la. Hmm. parce que lu ñëpp bokk la te xamoo kan la. Hmm. lu ñëpp bokk la mais yow mënoo teg ni kii professeur moo ko moom. donc yow da ci war a maanu. bu nekkee nag yow dugg na muy kuut. muy AGEPEX ay trois cent cinquante et quelques te fait l'émission tu te poses des parce que amul temps ñu ciy wax parce que aussi on est de jeunes mhm. on souhaite que quand des jeunes comme nous arrivent à des stations de gestion mhm. Mhm. qu'ils soient des exemples parce qu'on a mené des combats avec eux c'est inquiétant mën nañu sax ba wax ne lay ay affaires yooyu bëri mais jeunes comme ñun ñu jox la yow direction war nga mën a am hauteur xalaat ne ñi nga àndaloon démb di xeex lii moo taxoon ngeen xeex nga war a bañ a répliquer la même chose man loolu moom ci gën a bett. parce que c' est c' est c' la la somme est même très grossière est très grossière pour ça. nga nga tudd ci am na sax ñu jéem a génn di wax ay si ses bi ay ay xam nga am na loo xam ne. alors ko mu ngi mu ngi koy wax da ngay génn Dakar bi rek. tu es confronté à des réalités. mënoo comprendre que kii mënul am cent francs pour jënd paracétamol. xam nga loolu moo grave la femme bi nga xam ne mu ngi kumpeñtum mu war a mun a matu léegi amul fenn lu dul ñu wéegal ko ci charrette di ko dawaloo dix kilomètres Saraya hmm. ak Salamata y a des choses boo duggee ci biir dëkk bi hmm. tu es sidéré te man li ma ciy gën a jaaxal mooy la hmm. mënuñu ne ñi ñun ay jullit nañu gëm nañu yàlla ñu ngi widd ñu ngi wasifa ñu ngi gàmm ñu ngi ziyaara te loo aspe boobu mënuñu ko intégrer que loolu yëpp mënul am solo lu dul ñu nag suñu sa sa mbokku njurit bi nga am. nga war ko mën a teg ci même piédestal bi nga xam ne yow moom nga bëgg a nekk. teewul soxna bu dul jaaxle jaaxle yi saa yu taalee dindi ni maan leen si dàll yi kay. dàll yi <laughs> c'est une réalité xam nga si ñun ça reflète en fait nit ki bu feebaree société bu feebaree dañuy nangu ne feebar. ñu woo professeurs yi ñu woo sociologue yi. ñu woo ñëpp ñu toog ñu xool nag exactement fan la affaire yu amee parce que la crise est li ma la wax la crise est tellement profonde. gis nga nu mu waxee gérer xamuñu lu ñuy gérer suñuy ressources pêche yi. pétrole ñëwagul. mu ngi wax ay ay ay ressources minérales yi. donc loolu yëpp bu ko mënul gérer bu manque financière bi nar a dal suñu kaw ñëwee. mais maar day taal. c'est autre chose day tas réew mi. donc vraiment le le mal est profond. et je pense que président bi muy wax commission. dafa waroon rek ne te et puis di ne na ñi ñi bës seen xol. mais ñi mënuñu seen xol. looy bësee sa xol ci loo xam ne yow nee nañ la nii dañ ko dañ dañ dañ dañu sàcc wala dañu luubal même si ce sont des accusations neel dinañ ko jébbal justice ñu seetal seen def hmm. Rwanda buñ la tiima buñ la buñ nee kii dafa dafa sàcc dañ koy ñëw ne ko ñukk def enquête bi ba pare buñ ko kii ñu bàyyaat ko tegaat ko ci pour samu def hmm. c'est ça c'est ça hmm. mais dafa euh, dañuy xool euh, Sénégal bari na ay corps de contrôle GIE OFNAC euh, ARMP ak yeneen ak yeneen mais naka lañu mën a def ba nga xam ni rapport yi ñuy génne dinañ ko jëmmal jëmmal ko ngir euh, ña fa nekk di liggéey ñu leen di jox alalu askan wi ñu war a mën a def seen liggéey génne ay rapport dafa mel ni léegi tendance bi sax dafa jëm ba nga xam ne ceux qui sont même les vérificateurs mais xam nga c'est ce qui est triste wax nañ ko c'est ça la vérité euh, ce qui est triste c'est que les gens ne se rendent pas compte a quel point Macky Sall est en train de démolir des institutions. ñu ngi doon dañu doon woowee Abdoulaye Wade demolition man tellement da doon massacrer institutions yi boobu euh, à l' époque à la Gazette. mais ci lii aussi di xew ci jamono yi ñu ngi koy tuutal parce que bu fekkee ne euh, kii dafa euh, ay corps de contrôle dañu def seen liggéey ba pare président saña wax ne. Mm-hmm. damay créer commission pour mu xool lu ñu lu ñu def ndax parce que quand même y' a problème est ce que foofu aussi am na fa conseil. cour de comptes ay magistrats est-ce que ay magistrats fa nekk et puis dafa bokk ci ça dire que xam nga dafa am bu ñuy woowee séparation des pouvoirs ñoom loolu mooy seen institut instrument bu ñuy defee bu dee législatif bi am nañu seen euh, groupe euh, comment on appelle les les commissions d'enquête parlementaire justice cour des comptes ñoom seen i magistrats ñooy dem càmbar saytu xool yëf yi moom la ñuy contrôler li xew comme euh, mun nañu ne IGE exécutif bi ñoom la ko parce que président sax parce que la logé mais bu fekkee ne ñooñu ñëpp ku ko ci def bu ñu paree ki nga xam ne moom moo war garanti garantie l'effectivité des sanctions yu ci war a am wala boog l'effectivité de de de moo war a nekk garant te impunité bañ ci am moom mooy taxaw mettre ki ci doute pour lan parce que dafa bugg a préserver ñi nga xam ne ñoom ñoo farak moom yaa problème cest à xam nga li ma ci métti ci yëpp mooy que actes yi ñuy posé pour seen nguuru tey ñoom du ñu mesurer lan lay yàq ci réew mi ëllëg te lan moo ko indi liñ fi wax ci njëlbeen jël ay directeur fal fa say militant politique dem ba politiser post de direction yi loolu moo ko rek ko indi du la nag parce que booy fàttaliku ñun bu ñu nekkee xale théâtre yi ñu daan seetaan bu ñu waxaan ne contre contrôle ñëw na ci société directeur ba dafay tiit te ginnaaw bu ñu defee liggéey bi ba pare kenn du xalaat ne président dina la protéger mhm. wala bu ci am sax da gis ne c'était exceptionnel wala sax danañ ko daan jël réglé ko sax duñ ko yegg si heureusement que maintenant avec les médias dana nit dañ njëkk yi parce que bu njëkk ba aussi président dañ ko doon étudier kenn du ko xam xam nga mais bu fekkoon ne tey jii ñi nekk direction yooyu mérite moo leen fa teg non pas parce que ci parti bi la ñu bokk président bi leen protégé kon nit ñi sax xëy na def débat les gens vont parler des rapports nit ñi xam ko justice saisiru te noonu la ñuy korkorale alalu réew alalu li ñëpp bokk bu ñu ko bëggee sàmm allah fokk ñiy cambar bu ñu càmbaree ba pare cambar gi am njëriñ. mais ñoom bu ñu saytoo te bu ñu paree président ci boppam mooy njëkk wax ni ah lii kat taxawut nañu xool nu ñu ko lijjantee man dinaa teg beneen commission pour noyer le poisson. y problème amu ci droit même est-ce que sax may na ko ko. loi may ko ko. pour man yooyu noonu yëpp c'est des c'est des actes yoo xam ne mi ngi massacrer encore suñu institution. vraiment ci dossier boobu li ñuy li ñuy wax gis nga boo xoolee gestion bi. lu bees que depuis ay Koudou Ndiaye et cetera gis nañu fi mu nekk aussi toujours lan yi xam ne sénégalais ñoo leen fay dañ def seen liggéey. Mm-hmm. mais politique bi moom mooy étouffé ba garantir impunité pour tous. Mm-hmm. plus lan moo ko waral bu ma doon delloo chaîne de responsabilité bi toujours dama bëgg di ko delloo man parce que j'aime bien xool lan moo ci sama wàll. Mm-hmm. foog ñu xool nu ñuy fale waxoon naa ko si njëlbeen. parce que bu fekkee ne ñun bu ñuy fal. cinq mille francs da ciy joué deux cent francs da ciy joué t-shirt bi bi yére bi ñu lay jox nga soog daf ciy joué mhm. ñi nga xam na ñooy dimbale président foog mu teg leen foo xam ne ñu ko jëlee xaalis c'est vrai mooy li nga wax sànq dañuy dem bay encouragé ku sàcc ba raw mhm. ñu tàccu la mhm. donc vraiment nañu problème bu sérieux la mais li kiy responsabilité bu bugg attirer attention mooy attention président de la république bul démolir suñuy institution boo leen mënut a protéger bu fekkee da nga leen décider protéger mënoo leen jox justice mu def liggéeyam ngir yàlla préserver au moins mm -hmm. les institutions justement alors ci euh, noonu parce qu'il nous reste euh, cinq minutes on va y aller très rapidement euh, est-ce que tey jii suñu dirigeants yi ñooy euh, fragiliser les corps de contrôle de la République ba tax tey jii kuñ ci épinglé nga nga remettre en cause travail yu institution yooyu ce qui c'est-à-dire de destruction de nos institutions ñu ngi assister à une destruction wala une autodestruction nationale du Sénégal le principal responsable s'appelle le président Macky Sall il faut il faut pas que ñu am ay œillères euh, avoir cette impression qu'il nous faut un microscope pour bien voir mm -hmm. la réalité elle est en face de nous je parle plus de coude maintenant je parle de man la dans la mesure où fële nga xamante ni da ngeen def enquête parlementaire pour ne da ngeen di vérifier yéen yaay benn dossier boo xamante ni dafa concerner Ousmane Sonko qui serait un opposant farouche parce que il aurait désigné quelqu'un en termes euh, d'avoir commis une faute que quelqu'un boobu si ñun la bokk mais bon pour contrôler la chose euh, duñu jaar par l'information judiciaire wala part simplement une convocation du procureur pour que kooku leeral te foofu moo doon yoon bu gën a gaaw. Mhm. dañuy jaar ci fi nga xamante ni mooy parlement ba parce que kooku euh, wax dëgg yàlla euh, ñun war nañ mën a saytu gëstu. Mhm. mooy la même chose qui est en train de se passer par une commission bu ñuy laaj pour vérifier liggéey bi nga xamante ni corps de contrôle yi def nañ ko mais sauf que ci phase bi mais corps de contrôle yi c'est le sommet c'est la grande élite mhm. c'est-à-dire que enquête parlementaire boobu corps de contrôle bee ko ëpp doole. looloo ne ci kayit yi. Mhm. aujourd'hui dañuy fàtte benn affaire le président de la Sénégal dafa yokk budget de la présidence. dañ koy fàtte en 2020 défendu par le ministre bi nga xamante ni moo amee finance di monsieur Diallo Abdoulaye Daouda devant des parlementaires pour leur dire que oui c'est normal que ñu yokk budget de la présidence ci moment boo xamante ni l'état nous di mënuma c'est normal que ñu yokk ko parce que simplement oui vous savez que l'OFNAC est logé maintenant à la présidence ça pose problème ah. kon am na kenn ku am volonté wu lenn li bañ a leer au-delà de ce que Pape Alé nous a fait révéler par rapport à madame Nafi Ngom Keïta et cetera juste dire que nga daanelee foofu fi ñu mhm. nekk mhm. mooy nguur boo xamante ni tey bu ñu jëlee coronavirus moment bi nga xamante ni président Macky Sall jëm na avion dem Dubaï mhm. ci crise bu ñu toll. au même moment président Macky joxe na jël na décision ministre des affaires étrangères. ak ay nitam une délégation bu war a dem Corée jëli benn prix pour lui. très bien et que lui moom président bi comme bëggul jege Chine ñenn demal ko moom mu dem Dubaï Dubaï dafa féex dafa am jàmm. pire madame Eva Marie Coll moo nekkoon ministre de la santé au temps de Ebola. très rapidement parce qu'il faut que ñoom tam ñu réagir des maladies infectieuses ci contexte bi moi j'ai revu en casting que le président la République mettre ko au devant de la scène peut-être moom mu amee communication bi pour wax ñu maladie bi lan la mhm. et que lan la ñu mën a def sax pour jëli mhm. ñale donc on a un en face de nous. Euh, un manque de sérieux terrible. Mhm. Pape Makhtar très rapidement. Euh, ci ci institution yi euh, peut-être ñu jéem leen renforcer rek parce que tey jii seen liggéey kenn du ko kenn du côté boobu aussi rendre hommage Abdoulaye Wade le président parce que au moins moom protégé wul woon nga xamante ne dañu dañ doon.